yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci baatu askan wi la ca gën ci bopp xibaar yi musiba mbabakumba am ca hôpital Magatte Lô ba na ca Linguère ñeenti liir ñoo fa lakk ñeenti ña ñàkk nañ seen bakkan ñaar ña ña ngi leen di sooy ci jamono ji foofee ca Linguère daa ngi ci dégg leeral yeeg eh, Doudou Thiane eh, coowal suuf jib na ca eh, Mbour jëm ci tamit li nga xamante ne gannaaw coowal suuf googule askan wa joxoñ baaraamu tuuma meeru gox ba di Pape Pape Songe eh, Diouf ne moom bëgg a saax-saaxe suuf sa ci anam yu dëppoowul ak yoon eh, maire gox ba moom we dina tuuma yooyu le moom mair bu Ngekoox daa ngeen ko teewlu ci eh, xibaar yi grève bu ñaxtu transporteurs yi yëngu ci wàllu hydrocarbure gaare seen woto ni ki démb ay fan a ngi nii daanaka bankoon seen loxo essence ñàkkoon lool ci réew mi loole nag juróon jafe-jafe ba tax na ñu bëri ci ñoom ne daañu weer seen grève bu ñaxtu Cheikh Diop njiital CNTS FC ne grève ba jeex na nañu delluwaat ci seen bërëbu liggéeyukaay daa ngeen ci dégg leeral yi ci biir xibaar yi dañ ci toftal ñaareelu xaaju xibaar yi lu yéene kaay xëye tey ak euh, Omar Bun Xatab Gueye mbokki bu nees ki seema dikk ak yéen ci àttalum xibaar yi dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ñu fa yéene ko door rek eh, Linguère hôpital eh, Magatte gafane Gaffane te tiis eh, jii ci suba teel gi ñeenti liir ñoo fa faatu ci lakk goo xamante ne am na ci googu lépp hôpital ca pédiatrie ba lakk googee sax juróom-benn liir ñoom ñoo ca jotoon loru ñeent ña nag ñoo ñàkk seen bakkan am ñi ci ñaar ñoo xamante ne ñu ngi leen di sooy ci jamono ji foofee ca hôpital Magatte Lô ca Linguère en direct ca Linguère dañ ci teewlu. leeral yi tukkee ci Doudou Thiane tey fii ci hôpital euh, Magatte Lô jéey doy waar moo fi am ndax euh, ñeenti liir yoo xam ne ñi ngi woon ci service néonatologie euh, nga xam ne foofu la ñuy denc xale yi nga xam ne matuñu ñoom nag ñoom lañ fekk ñu lakk ba jeex tàkk li ko waral rek mooy court-circuit lañ wax ne moom moo am ci service boobu nga xam ne mooy service pédiatrie juróom-benn liir nag ñoo fa nekkoon waaye ñeenti ñoom ño jot a ñàkk seen bakkan am na ñaar ñoo xam ne fi mu nii daanaka sonn lool ba fi mu nii sax Euh, ñu ngi leen di saytu seen wér-gu-yaram mbir moom nag euh, indi na jàqare bu baax ci hôpital euh, Magatte Lô ndax ci suma ba léegi nag waajuru xale yooyu nag ña nga fa préfet bu département de Linguère ñëwoon na fa également sapeur pompier tamit ñëwoon nañ fa waaye sapeur pompier ñoom bi leen wooyee balaa yi ñëw sax fekk na ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci hôpital bi fay lakk gi ñoom nag bi ñëwee daal dinañ def li nga xam ne moom mooy seddalaat béréb boobu nga xam ne foofu lañ doon denc xale yooyu garder mangoog euh, mu doonoon làkk gu métti métti ca hôpital euh, Magatte Lô gane ca Linguère juróom-benn euh, liir ñoo ca lakk ñeenti ña mujjee nañu ñàkk seen bakkan ñaar ña ca des ñu ngi leen di jéem a sauvé ci googule hôpital dañ ci diggaat ak suñu natango Doudou Thian ma ñu fa teewal lu waaju ci wàllu démbek dikk bi xaw naa sooxe lool dembeek tey ndax ñàkkum essence ci station yi askan wi am ci jafe-jafe borom woto yi naka noonu rawatina borom moto yi te ndefal ab diir ngir mun a am essence loole nag doon lu mun a xajamal koom-koomu réew mi dañ ciy teewlu reportage yu yaay Adama Diallo. ñàkkum essence bi si dëkk bi jur na jafe-jafe bu rëy si way jëfandikoo yi. ñàkku essence bi doon na loo xamante ni lu bette la nag quoi vraiment bette nañu.